Sané inconnu l'inconnu Jamil Sané a doublé les voix de Amadou Ba doublé maanaam bu Jamil amee soixante dix pour cent Amadou Ba trente cinq pour cent lam am yéen naka ngeen mën a xalaatee Ousmane Sonko mii ñu xam foo dem ci àdduna bi dañ lay ñaanal a ñaanal gis nga tey dinaa leen wax dara dama man tey léegi bu ma rombee ci diggante ay sénégalais fukki sénégalais yu ma gis fukk fukk ak benn ñoo may ñaanal léegi Macky Sall ñaata la am man masumaa dem gis ndaje sénégalais boo xam ne fukki nit la benn nit di wax ci Macky donc loolu mooy sondage un pour cent un sur dix mooy dix pour cent léegi Macky bu dee fukk yu ne benn la ci am mooy téeméer yu ne fukk la am te amul loolu léegi moom naka la man a gagné ay élection bay dem ay deuxième tour xam nga nitu Macky Sall yi problème bi ñu am Sénégal bi gën a mag ban la doon dama leen koy may nii tey mooy campagne d'abord nañu campagne d'abord campagne nitu Macky Sall yi li ñu am ci Sénégal mu gën leen jafe campagne la boo mënta campagne ci réew kenn bëggu la kenn faalewu la nooy gañe ku mënta campagne ci ab réew kooku naka lay gañee ci réew moomu sénégalais na ñuy waxante dëgg waay dama bëgg nag ci parrainage bii xam ngeen lu tax waa Pastef laaj trois millions c'est parce que électro électeurum Sénégal yëpp est-ce que tolluwul ci trois millions six waaye man d'accorduma ak waa Pastef man cinq millions de parrain laa soxla pour waa Pastef cinq millions ñun tey am nañu taxawaay boo xam ne juróomi million mën nañ ko am ci ay parrain juróomi million mais parrainage nañ ko teg ci yoon xawma ndax xam ngeen ni muy doxee waaye borom nit nitu Pastef warul parrainer ñaari nit doublon baaxul boo xasee ba jox sa carte Biram Souleye Diop bul rus Jomaay nga ko koy jox wala di ruus El Malick nga ko koy jox El Malick faalewul loolu Biram Souleye faalewul loolu ndax ñoom ñëpp benn lañ boo joxee kii jarul ngay jox kele boo joxee kale jarul ngay jox kii nañu tey bu ñu parax-paraxe ba yàq bu ñu yàkkamti nañu jël suñu temps def parrainage bi mu set wicc élection yi bu ñëwee xam nga man damay déglu ñu bari ñu naan balaa midi non non non ñun du ñu yegg midi ak Macky Sall ak gars yi balaa dix heures ñu duma leen balaa dix heures du matin ñun dem nañu ci urne voté ba ñoom ñooy gaaw yuuxu ne d'accord nañu ne gañe nga balaa ngaa dégg ne da ngaa sàcc ay élection xanaa nga am ay vote ku am ay vote moo mën a sàcc ay élection bu leen concentré wu ci seen yooyu ñuy wax dañu bëgg dalal seen xel ne waaw voilà diw mooy gagné waaw kan mooy joxe résultat yi waaw bu joxe résultat yi kenn du ci mën dara bu leen faale loolu waaw kan moo nekk cour d'appel waaw ki fa Macky Sall teg nitu Macky Sall bu leen faale loolu Ousmane Sonko faalewul loolu donc ñun bu ñu faale loolu xale bu góor bu taaru dem na ci boîte de nuit mu sol t chet bu weex taal lu dul gën a duufal euh, euh, euh, dënn bi dara du ko fa dal xale bu góor bu ñaaw dem na ci boîte de nuit bi sol mbasin bu weex tal jël ay lunettes yu weex sol jël lépp sol waaye ñaawaayam ngi du tee day feeñ bu leen faale ñii nga xam ne ay wax kese lañuy def bu leen leen faale bàyyi leen leen ñoom ñu wax ñun ñu jëf ba yi di àddunay démb ba léegi yàlla masul fay wax baay jëf loolu dama ko daan dégg lu bari ñu koy wax yàlla jëf lay fay du wax donc ñun bu ñu demee di jëf dajale suñu ay parrain Macky Sall ñëw élection billahi dix heures du jot dañ koy ànd nag ak fulla ak fayda bu mat sek makki Sall ñoo ko man man ndeyam man baayam te te déjà bitim réew dama leen koy wax bépp nitu Macky Sall Sénégal amatu leen droit xeex bu kenn xeex guddi ñu toll nañu concentré ci élection yi nitu makki Sall yi bàyyi leen leen ak waa bitim réew ñoom dootuñu voyager ci bitim réew kenn dootul tukki ku tukki bitim réew ñu won la safara gis nga ñun suñu gars yi Guy Marius xool leen ko bitim réew Guy Marius Sagna bu génnee bitim réew dafa ay millions de personnes ñoo koy wër léegi ana sondage bi Macky Sall laa la wax de président du Sénégal bi mu ñëwee Amérique dafa fay kenn ku ne trois cent dollars ñii quatre cent ñii deux cent pour ñu dem gàttanlu ko dafa fay Guy Marius Sagna doomu aadama yi ñooy fay voyager pour dem gis donc loolu mooy sondage soo leen bëggee xam sondage xool leen loolu waaye bu leen déglu télé senegal yu man a fen yi journaliste Sénégal yu mën a duul yi wuruj waraj fen rek boo jëlee ñu mel ni ay lëndëmal boo jëlee ñu mel ni ay te TFM duul rek Seneweb duul rek ñu dañuy ay télé ñooñu dañuy ay télé ren c'est des mercenaires ay ñoom may mën a nduur fen fen na fen a fen a fen ndaw sax boo leen may mën a nduur xeesal gi mu xeesal ba gatam gi tourné may mën a nduur fay bandi la déglu leen ma de may a nduur Faye est une criminelle moom moo la gën a leer leerab yàlla ne ku mel ni Ousmane Sonko wala kenn ku mel ni moom bu faloo ci dëkk bi moom day perte licence su teleem parce que télé bi deful liggéeyu télé liñ ko joxee licence defu ko daf ko jaay nekk géwél a nduur tey mu tëggoon orchestre moo gën li muy def Cheikh Yérim Seck mu nekkoon jigolo prostitué bu góor di jaay cuccu bi moo gën li muy def ndax moom jigéen yi lay triyande rek jël seen xaalis dem yoonam tekkiwuñ dara tojuñu fen yàquñu fen sénégalais nañu am fulla am fayda am taxawaay te xam ne Sénégal ñun ñoo ko moom de la Sénégal nous appartient à nous ñun ñoo moom Sénégal ñun ñoo mën a defar Sénégal ñun ñoo mën a yàq Sénégal bandi yii ñu wër buñ leen déglu ces bandits de grand chemin ces délinquants faut pas répondre on n'a qu'à continuer à mobiliser continuer à se concentrer continuer à faire le travail sur le terrain incha allahu rabbi billahi dinañu am ndam insha allahu rabbi jéggal leen ma tuuti salaam brother Tunkara can you please whenever you get a chance okay can you please I don't know what you mean can you please what call you I figure that's what it is call you guy taxaw leen tam ñii ñoom xam nañu ne ils son finis Macky Sall moom xam na ne il est fini Amadou Ba moom xam na ne Macky Sall da koy nax ñoom xam nañu ko waaye ñun sénégalais yi ñun ñoo war a jël suñu ay responsabilité xam ne ñii ñu ko seqal c'est fini avec ces bandits là amuñu kàddu duñu wax dëgg du ñu def dëgg gëmuñu Sénégal gëmuñu sénégalais yi gëmuñu dara tous maintenant c'est à nous les sénégalais de prendre nos responsabilité dafa jot de ñu jël suñu ay matuwaay jël suñu ay responsabilité fexe leen vidéo bi tas yegg fu ne sama xarit patriote yi ngir yàlla nañu dimbali Pastef nañu jàppale Pastef damay saraxu nag ba sukk ci suuf duma ma tudd tur yéen ñëpp yéen ko moom nañu jàppale Pastef ak candidat yi nga xam ne président Ousmane Sonko moom moo leen dooleel pour ñu wuti parenage léegi nag li ci des ñun dañ koy bàyyee Ousmane Sonko ndax nit nag munoo jiital imaam imaam jël muazzin yow nga ne non non yow yaay doon imam bi yow yaay doon muazzim bi te yow yaa ko di jiital loolu mënta nekk mënuñoo jiital Ousmane Sonko pour mu nekk suñu kàddu ñu jiital ko pour mu jiite ñu ba pare ñun ñu bëgg koo defal liggéey bi ci suuf te moom yëgul li ñuy def lan la ñun ñoo war a déglu ndigalu Ousmane Sonko te ñu dox ci ndigal man ce qui m'étonne quatre-vingt-dix pour cent de mes quatre-vingt-dix vingt quatre-vingt-quinze ñii gëm nañu tarixa ñii gëmuñu tarixa et pourtant sëñ bi ndigal bu mu joxe moom ngeen di topp n'est-ce pas nañu topp ndigalu Ousmane